doomu ñoo xam tey euh, lan ngay tey sa xol. les jeunes les femmes les enfants pour participer à ce concert de casserole pouvoir montrer leur désapprobation tous les mensonges d'État on va venir nous servir avec soi-disant une la nation ce qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui c'est le président Macky Sall leur dise fera pas un troisième mandat c'est ça qu'il s'agit le troisième mandat, il est anticonstitutionnel. Les Sénégalais aujourd'hui en ont de cette politique de misère, cette politique de détresse, et les Sénégalais aujourd'hui veulent se libérer. C'est pourquoi je pense que tout ce que le président Macky Sall ce soir, soit disant à son adresse à la nation, si ce n'est pas pour dire aux Sénégalais qu'ils comptent pas briguer un troisième mandat, qu'ils sachent que tout ce qu'ils disent, ça ne nous intéresse pas. Parce de souffrir Les Sénégalais sont en train de souffrir avec une politique de santé qui n'existe que de nom. Les Sénégalais en ont marre d'une politique d'éducation qui n'existe aussi que de nom. Les Sénégalais en ont marre aujourd'hui de voir leurs ressources être pillées sans contrepartie, la justice fasse son travail. Parce que malheureusement, le président Macky a fini de diviser le Sénégal entre ses partisans, ses amis, ses copains, ses coquins et les c'est le rapport de la Cour des comptes. Et je rappelle bien sûr que dans ce, rapport de la Cour des comptes, la gestion personnelle de Macky Sall n'est pas auditée. Et Macky Sall devrait éventuellement nous dire qu'est-ce que lui a fait des 1000 milliards qu'on lui a donnés. nous le dise. Donc, une fois de plus, di gërëm di sant Sénégalais fu ñu mën di nekk euh, di leen di bëggee leen di jox parce que lii mooy démocratie lii mooy démocratie ci démocratie nit ki soo ci àndul ak politique bu lay teg da ngay jóg na wane sa naqar wane sa taxawaay kon ñu ngi remercier particulièrement euh, askanu Baobab parce que fi laa di leen di gërëm di leen di sant te fépp sénégalais mu ci nekk wane tey naqaram di leen di gërëm di leen di sant di leen di encouragé tamit te 2023 bi na nekk euh, atu wér-gu-yaram na nekk atu jàmm na nekk atu naataange ci askanu senegal mais na nekk tamit at bu ñuy doxante loxo pour mën fi jëlee Macky sal parce que Macky Sall ci moom la des est-ce que daf fi jóge jàmm ak salaam wante est-ce que yàlla fi jëlee moom ci moom la des wante bu ñu Macky Sall bëgg a teg duñ ko nangu tey duñ nangu ëllëg parce que lu ñu Macky Sall bëgg a teg yebeel la ak nooteel la ak jaay doole la du baral ndogalu yàlla moo tax ñu ngi woo dañ joxante loxo euh, lu jot jot na. lu jot nag tey mooy jëlee fi Macky Sall ak ñi moo àndal ñu ngi gërëm na